art bi moom regroupement yàgg na koo def xañ na dafa feeñu toon ak ni mu ko daan defee mais doore sans moom tey la première fois ñu ànd ko suñu président Ndongo Gueye ak suñu président Ndoye Fall mi ak suñu président Alaaji Gueye ak suñu jëriñ Badangom mi ñoo ànd liggéey bi ak képp koo xam ne bokk nga daara ak képp ku bokk te regroupement Mbacké ba mu doon ak at boo xam ne nii regroupement yàgg na koo def daan am ñu am ay jafe-jafe mu di génn kaso daana am ku am jafe-jafe mu yëkkati xaalis di ko def di faj nit ñi ci c'est gratuitement yooyu daal ci yëngu waaye tey dañ koo avancé ba bool di doore cent ak fexe ba gone yi am ay kayit mu ndax euh, fii boo rexool accouchement domicile dafay bari gone yu bari amuñu ay kayit léegi ñu ne nañ fexe ba euh, jël xal yi jaar leen ci yoon ñu am kayit yu valable jaar na audience forel regroupement yi muy bu Mbàkke bu Touba président Ndongoy président Ndoye Fall jàppale waa daayira bi muy gone yi Mbàkke Touba yi ba xal yi am ay kayit tey bis bisib tey bi ñu war koo euh, jox sunuy gone. déedéet du benn ndikkal bu jógee hôpital ñun dañoo njort na sax war na romb fii ndax fi dëkk Serigne Touba la te lu fi waay def Serigne Touba nga defal bi ñu toogee waxtaan waxtaan ak suñu président waxtaan ak ñaari président yi ñu seex wax dëgg yàlla mi jàpp ne ñoom sax chaque année bëgg nañu ko def surtout bu màggal Touba di jub si foofu noonu dane nan commencé lii rek mais xam naa chaque année màggal Touba ndax màggal Touba boo dee xool soog yi day bari bon sang bi dañ koy soxla jigéen ñi ak bi kon donc ñun war noo mën a mobiliser wu donte ñoo ngi ko doon def sax xañ na euh, kenn ku nekk dem fen di ko def waaye dañoo bëgg mobiliser wu ñun transport regroupement Mbacké Touba bokk bépp regroupement nag bu fi teew ndax ñu fi teew bari na président Idika mu ngi si biir ñu bokk ànd ko jàpp benn bis di ko maye. koor gi nit ñi dañuy soxla sang te ñu bari dina ko maye weeru koor léegi ñu leen fexe ba koor nekk waa Diourbel waa hôpital Diourbel ñoom ñoo ñëw couvrir ko ñoo ngi nii ñoo ngi sant seen taxawaay ak seen teewaay